vous avez eu du mal à venir jusqu'ici parce que tey ñu bëri ci yow amuñu sax fit moo ko tudde noonu génn seen ay kër. xam nga bi ma yegg see dama la ne ñun ay jullit lañ avant ñuy juddu yàlla dëgg na fi ñu war a jaar ba pare dee moom nga toog sa kër mu fekk la fa nga dëkk ci bedd mu fekk la fa. quand la mort est là on n'est quand on est là la mort n'est pas là quand la mort est on n'est plus nit ku gëm yàlla. lu mhm. tiit yàlla moo yor bakket yëpp surtout nag bu fekkee na nga nekk yoonu dëgg bul nangu wécci bul nangu bul bañ aussi bul bañ wéet ci bul bañ dogal fekk la ci bon naturellement coow li bari na am na ay mbokk ay xarit ay abdi jàmm man na ba nekk ministère de l'intérieur am liggéey aussi moo war a amal ci dëkk bi mhm. encore une fois ñu bari woo ñu ne ñu toog leen mais dañu jiital yàlla jiital suñu gëm-gëm jiital suñu fit aussi jiital dëgg bi nga xam ne dañ koy dox surtout loo xam ne euh, sénégalais yeeg yàlla ñoo ñu dënk réew mi ñu war ko doxal war a aar sénégalais yi war aar moomeelu sénégalais gat yi nga xam ne ñu ngi dund suñu biir loolu aussi ma koy fàttali responsable yi yi responsable Benno Bokk Yaakaar yi ak képp kuy Sénégalais te dëgg tax laa jóg ak ak koom-koomu réew mi ak émergence réew mi ndax encore une fois euh, pouvoir bi du loo xam ne coup d'état moo ñu ko jox wala guerre civile. Mhm. ñun dañuy tekkil suñu ndombol tànk. fii à part contexte naufrage de Joola ñu ñu tuumal càcc sax yàlla ma yàlla baal dañu ngooñ ci liñ leen dënk bañ a yombalal yoon seen liggéey. ñun dañu tekki suñu ndombol tànk muy guleet Sénégal ñu wër réew mi yàlla ak Sénégalais yi dénk ñu réew mi ñu am un mandat légal di ko exercer au profit du Sénégal yaa ngi dégg. Mhm. à la tête de sous le leadership du président Macky Sall. donc encore une fois li nga xam nañ koy ñaawlu mooy ku jegoo xam ne vraiment lu nekk gis nañ ko Sénégal ah de 1960 à aujourd'hui xeetu ku jegu nekk. ay kalante am fii ay monsieur Moulin monsieur Forage madame Moulin on a tout vécu quoi mm-hmm. prison am na fii moom ruja teg teg dañ ko fii ak yeneen ak yeneen mais li xew mosuñu ko gis en vérité ta ñoo xam ne boo leen wooyee ci yoon du ñu dem dañuy défier toutes les institutions mm-hmm. di dal ci kaw kilifa diine kilifa aada yi tey xalif général des mourides li mu fi waxoon ci kanamu ku jégi yëg nga ko xalif général des laay li mu fi waxoon ci kanamu ku jégi yëg nga ko Serigne Mbaye Sy Mansour ñaseen yi mm-hmm. da ngay toog sa xëy baalu ji donc loolu lu ñuy ñaaw la d'abord comportement bi nga xam ne kujje gi wala ñenn ci kujje gi muy lim gu néew am nañ ko jëmale ko suñ kilifa diine ak suñu kilifa aada yi. Ah, nga xam ne c'est des régulateurs sociaux. d'accord am ko aussi sur toutes les institutions de la